mbokki internet yaatal vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu dikk ak yéen ca la gën a fees ñu daal di koy door Ousmane Sonko nag dañ koy daal di dooree ak Bassirou Diomaye Faye meeting de yi nga xamante ne bi ñu ngi koy amal ci biir réew mi foo sànni mbat nag mu dal di takk foofee ci diwaanu mbuur nag mbooloo mu takkoo takku lan fa dal di nemmeeku ni ko tey jile loole nag mu mel ni ñoom danoo jàpp ne nag ndam daal dinay xeeñ bu baax a baax a baax jëm ci seen coalition boobee di Diomaye 2024 foofee ci diwaanu mbuur daal ak yu dëkk yeneen ak yeneen yoo xamante ne bi na ngay tëj nag seen ab campagne de collecteur loole nag fees dell lan daal di gis nag am mbooloo moo xamante ni bii sax ñoom dañoo jàpp ne xamun fu mbooloo ma jóge loolee lan daal di nemmeeku ni tey jile mu mel nag ñoom dañoo daal di bàkku nag fas yéene jëmale nag ca camp ci élection yi nga xamante ne bi ginnaaw suba rek la muy dimanche loolee daal lan daal di xam le ñoom ñi nga xamante ne bi ñoo féetee Shit,